jaajëfatee jaajëfatee sama gaay yi Mister Shake la maa ngi nii États-Unis côte ouest maa ngi nii ci océan Pacifique gaay tey dama ñëw dafa leen benn vidéo ci Halima Gadji la foli ou la dépression d'Halima Gadji Halima Gadji di ko gis mu mel na ku feebar di naan mandi xamatul fu mu nekk ñàkk nelaw bëgg naa wax ci politique bi parce que temps yi bu ñu wax te waxuñu ci politique Pape Djibril Fall lan moo tax mu ne dafa bëgg a nekk député kan moo ko yónni est-ce que Youssou Ndour moo nekk ci ginnaawam ñun mënuñu gëm ne Macky Sall moo nekk ci ginnaaw mais bu leen fàttali ne Youssou mooy patron Pape Djibril Fall te pap Djibril Fall fan lay jëlé khalis ñaari weer mo dess wala ñetti weer ci élection yi ñu ngi ci avril mai juin juillet ñetti weer fan pap Pape Djibril Fall di jëlé ay signature ay nit yu bind né parrainage dañ koy voter parce que man seetaan naa ben émission est-ce que du woon ben Sénégal xaw ben benn def ci analyse bu doy parce que demba bama défé vidéo dama né pap pap Djibril Fall

mais aussi on sait que c'est une Sénégalaise, une artiste qui est euh, dans, euh, comment dirais-je, dans les était avec la troupe euh, Marodi, n'est-ce pas Voilà. Les Ali Magadji, à mon problème, n'est-ce pas porte parce que les gens ko brûler. n'est-ce pas Mais les 300 000 300000 la fait ko dem mais nag tey bu Ali gisee Alima Gadji mu génn vidéo di weer donc c'est comme un appel au secours Nena na naan na ci weeru koor la ñu nekk waaye moom Nana. L'une na lu ne ko guddi ko bindal pour mun jël ko mais terewul munul nelaw xale bi kenn xamul lu muy nduróol kanam gi mel ko ku dof Dofna. na waaw bu jugee di wax dépression dépression Amna. na waaye c'est c'est c'est la folie Alima Gadji ñàkk na sa gom appel au secours

yooyu di wax pour ñu bàyyi ko bàyyi leen ma bàyyi leen ma pas moom it dafa amoon ay problème mais nag dafa mel ne dépression Alima Gadji moo gën a graaw ndax Alima Gadji moom dafa génn carrément mu ne day naan ci weeru koor kon moom surtout amatul lu koy ragal lii nag pour rôle modèle pour suñu xale yu jigéen yi xale yu jigéen yi nga xam ne dañuy gis ñoom Alima Gadji ak ñoom Adja Diallo def leen ay modèle te bu ñu demee ba di banaliser naan amatul lu muy ragal ñun Sénégal war nañoo tiit ku mel ni est-ce que warati nañ ko jox rôle ci suñu théâtre c'est vrai que pour le moment aussi il faut ñu wane yërmande parce que appel au secours kii dafa sonn te bu ñu moytuwul elle elle va être suicidaire ndax Adji Diallo Adja Diallo ba muy wax mom dafa non mu dé sax moko gënal donc on dirait qu'elle avait des tendances suicidaires mom tamit mais depuis lors Adja Diallo gis nañ ko je pense que maintenant ça va très bien mi ngi yoon amoon émission télévision mais Halima Gadji mais est-ce que carrière sax du fi jóge yàqu ba faw waaw parce que di ngay liggéey li ngay liggéey mën nga ko yàq lepp ngir sangara wala dépression parce que loolu bu ko gisee bu ko gisee producteur bi ñu gisee dootuñu ko jox benn rôle lan moo tax nag muy def lii parce que moom nee na dañ ko violé waaw nee naa leen milieu showbiz suñu xale yu jigéen yu bëri dañu bëgg a nekk euh, artiste mais dañu bu ñu xamoon li ci nekk muy milieu musique muy milieu lu mu doon di ngeen def attention man musicien la damay defar ay biit damay woy mais boîte de nuit sax du ma ko fréquenté comprendre nga xëy na loolu tax sama carrière musique du dem fenn parce que man milieu bi dama ko ñemewul ñemewuma milieu euh, euh, musique di fanaan surtout nag mu ne boo nekkee jigéen di fanaan ci mbedd bi ba ay une de du matin deux heures du matin di nekk ak ay artistes di nekk ak ay comédien xamuloo ñu lay yóbbu ci ay hôtel gis ngeen li dal suñu man yi n'est-ce man mannequin Miss Fatick gis ngeen lu ko dal ak yeneen yi di wax ne dañ leen violé kon jigéen ñi dañu Sénégal Afrique dañu foog ñu protégé suñu jigéen ñi jigéen yi li ñuy dund vraiment dafa lu lu lu lu metti la mais Alima Gadji vraiment ñun ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal li mu war a def mooy mu dem euh, mu ut dem ci ay mbokkam wax jëpp loolu la parce que xale yi dafa mel ne amuñu ay mbokk ana frère am ana sœur am comprendre nga nañ dem ci ay seen mbokk ñu yóbbu ko ñu ñu yóbbu ko ci ay psychiatre xam nga ci ay nit yoo xam ne dinañ ko mën a faj mu continuer carrière am sinon fii lay jógee mën na futi ba faw jigéen la gars yi dinañ ko fooye dinañ ko saax-saaxee n'est-ce pas pour wax la ne eh, dama lay jox benn rôle mais il faut nga tëdd ak ñoom pour ñu jox le rôle promotion canapé moo am Afrique gars yi loolu la ñu wax ci ci pour wax là nag histoire bu doy waar la man de bett na ma parce que man je pense que Halima Gadji c'était une fille put well together maanaam une fille vraiment une femme boo xam elle avait euh, sa sa sa sa carrière en charge mais da nga leen di gis ni ñuy dox di dem mais les ñuy dund bu ñu la ko muy artistes yu jigéen ñi muy musiciens bu buñ la ko nettalee da ngay daw milieu bu doy waar la ay kayma rek fa nekk ay kayma ñoo nekk ci milieu show surtout nag Afrique Pape bi nañu wax ci politique tuuti parce que temps yi politique moo remél réew mi affaire aji Adji Sarr affaire u Khady Ndiaye élection député yi Macky Sall troisième mandat Ousmane Sonko tout moo tax tey bu ñu gisee Pape Djibril Fall mu génn mu ne dafay nekk député

doole yeewu askan bi ndax Pape Djibril Fall ñëpp xam nañ ne opposition bi la gën a jage jege ndax moom buy def ay chronique di wax day mel ne Pape Alé Niang di critiquer Macky Sall xam nga waaw kon est-ce que moom warul woon ñëw rek jéem a ànd ak yeewu askan bi mais mu ne dafay beddeeku bu beddeekoo est-ce que loolu dinañu arranger ñun waaye yeewu askan bi kan moo nekk ci ginnaaw parce que man seetaan naa benn émission Buzz Sénégal ñu koy wax fan la jëlee xaalis 4 x yi.

waaye yow askan bi bëri dañ koy teg ne xaaral ñu jéem fi jaare pour wàññi dooleem kon ñu li ñu wax rek mooy yow askan bi nañu def attention ñoom Ousmane Sonko ñoo war a jóg buñ ko mënee xëcc ñu xëcc am na ñu ne dañ ko war a mais yombewul noonu parce que yow askan bi déjà li am ci député ñu bëgg nekk député dafa bëri te du ñu liggéey at Pape bi faa jóge fële rek ñu jox ko benn place député day day day yomb trop ci yow askan bi kon munul munul nekk yeewu askan wi voilà mais daal lii benn contribution la bu mu bëggoon def pour wax Pape Djibril Fall na def attention xaalis jarul yenn yi waaw bu fekkee ne yow dañ leen dara def dañ leen dara financé pour Youssou suñu utiliser la wala Macky Sall utiliser la te yow da nga ne askan bi ngay liggéeyal waaw Sénégal nag ñun ñu ngi ubbi suñuy bët ñu ngi bët ñu xool parce que kenn duñu nax gars yi li benn contribution bu ndaw la xam nga pour wax le Sénégal chaque jour li may li may wax rek sama message mooy message de paix waaw yàlla moo suturaal Sénégal dëkk la boo xam ne musul am guerre civile musul am dara événement de mars yi moo fi jot a am te bëggatuñu lu mel noonu amaat yàlla dimbali ñu ñu gagné coupe d'Afrique gagné coupe du monde gis nga man coupe du monde bi sax maa ko seetaan Algérie Cameroun di seetaan Sénégal Égypte maa ko doon seetaan léegi nii rek billahi wallahi taalaahi penalti yi Koulibaly njëkk raté tout ça ah euh, ñoom Sall raté temps yi koy xool vraiment dafa neex man bu njëkk ba sax dama ne woon Macky Sall vraiment man bëgguma mu gañee coupe d'Afrique wala coupe du monde parce que da ciy da ciy politique mais gis nga yàlla du juum te Macky Sall xëy na yàlla moo ko bëgg mu gagné coupe d'Afrique gagné coupe du monde duñ ko ko weddeel chance am la mais na ci profité pour jéem a taxal Sénégal mu dem ci jàmm ak salaam te ku mel ni Thierno Youm

ba suba incha allah ñu defal leen beneen vidéo merci